réer ak tooñ taqatlikoo ak dog mbokk bokkale yàlla ak réer lii la nit ñi nekkeewoon ba yàlla dogal fajar bu bees daldi fenk leer bu dindi yële lëndëm lëndëm muhammad rasulullah melale na ko boromam ci wax bim ko wax ni yow muhammad yaa ngi yor jikko bu màgg màgg màgg booleel na ko mboole melokaanu mat ak melokaanu rafet ya nga xamante ne benn doomu aadama jotul lu mel noonu sax na ni moom moo nekkoon ka gën mat ci nit ñi xel ka gënoon tabe ci nit ñi ka gënoon yaatu dënn ci nit ñi ka ëppoon kersa ci nit ñi ka gënoon jàmbaar ci nit ñi ka gënoon dëddu àdduna ci nit ñi waaye tamit ka gënoon suufeel boppam ci nit ñi doon na dimbali njabootam ci biir këram di ñëw yëreem waye tamit di liggéeyal boppam doon na seeti jullit ñi ak ñu dul jullit ñi di seeti ña feebar ñi di leen ñaanal yàlla yiw nekkoon na ka gën a leer wax waaye tamit ka gën maandu ci nit ñi waaye tamit ka gën am ñeewent ci ñu lompañ ñi nekkoon na tamit ka gën maandu digganteem ak jigéen ñi waaye tamit digganteem ak xale yi yërmandeem matale na ba daj bàyyi ma yi ñi jullit tàgg nañ ko ba kenn ci ñoom wax mu ne ñépp ña dëpp ñépp ña dëkkee Europe seeni dégg-dégg ak seeni xel yeggul fa yonente bi sallallahu alayhi wa yégoon kenn ci ñoom wax na mu ne àdduna bi amul benn góor bu ñu gën a soxla ka tollook yonent bi sallallahu alayhi wa ak dégginam kenn ci ñoom wax na mu ne sharia yonent bi dana mujj di jiite àdduna bi ngir dëppoo bi mu dëppoo ak xel waaye tamit ak xereñ dimbali ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nit ñi di xamee dayoom ak palaasam waaye tamit wasaare ko ci biir nit ñi ay ngëneelam ak i jikkoom ngir nit ñi roy ko waaye tamit topp ko waaye tamit sàmm sharia bi mu indi ci dàq lépp la nga xamante ne ay lënt-lënt la bu nekkul woon ñeel na yonent bi sallallahu alayhi wa benn ngëneel lu dul moom moo nekk suñu diggante ak yàlla ci yenu kàddub yàlla ak xamal ñu yàlla dona doy ci ngëneel ba nga xamante ne benn doomu aadama mënu koo gërëm lu tollook noonu waaye tamit mënu koo delloo njukkal lu toll noonu dund dundam di jottali xeet bi yiw mu nekkul woon lu dul loolu waaye laaj na boromam boromam dale koy rambuloo ëllëg yowmal qiyaam yàlla mooy ki dëggu ci wax bi mu waxee ni yow Muhammad dañ laa yónni ngir nga nekk yërmande ñeel doomu aadama yi ak jinne yi